opposition des jeunes mais également bàjjenu gox yi les associations de femmes pour waxtaan ak ñoom ci benn projet bu ñuy tuddee un quartier di emplois loolu nag li mooy que ni gis nañ ni président de la république am na gis-gis bu leer ci fan la bëgg a jëme Sénégal am na it ambition bu leer. mais président bu amee gis-gisam joxe ay orientation gouvernement am ñoo koy mettre en œuvre mais également ñi nga xamante ni c' est des démembrements de l' état tam mairie tey jii bokk ñoom tamit dañ seen rôle ñun président waxoon na 500 mille communes ñun bëgg nañu si loolu ñu indi ci suñu contribution te ci naka mooy que damay mettre en place benn comité de pilotage jiite ko pour projet bi nga xam ne moom la ñu tuddee un quartier dix emplois mais def leen unité de gestion ou bien de coordination du projet boo xam dañuy jël nit koo xamante ne dafa xarañ ci wàllu boobu. boole kook ni ñu koy booleel ñu sillonné quartier bi délégué de quartier bu nekk woote ay focus ci sa quartier quartier bi waxtaan gis ni kat fii ci quartier bi suñ fi installé benn industrie bu ndaw wala buñ fi installé nangam xale góor ak jigéen war nañ ci mën liggéey nangam la laaj formation bi dala laaj ñu dellu si waat ko ci comité de pilotage bi ñun ñu uti formation bi uti financement bi mettre en œuvre projet boobu ci quartier boobu loolu yëpp nag bu ko boolee ci Tivaouane ci quatre-vingts bëgg nañu lu mu néew néew ñu am ci lu toll si junni ndaw ak jigéen yoo xamante nii ñii dinañ am seen seen seen xëy fii ak at jëm ñaari at lii nag day nekk xeex wàllu ñàkk xeex wàllu également euh, xale yi nga xam ne ñu ngi jóg di dem di jël gaalu loo tey pour dem Europe wax leen ni ku gëm sa bopp fii ci sam réew mën nga see liggéey suturul fii suturul say wéyu incha allahu taala engagement bi ñu gis ak ni ñu fas yéene taxawee projet bi am nañu yaakaar bu leer te ni le projet QDIS nekk label boo xamante ni tey jii génn nañ ko fi ci Tivaouane Sénégal bi yëpp dinañ ko xam Sénégal bi yëpp dañ yëpp njëriñam ba yaakaar nañu dina law dem tamit si yéen junni employé dañu wax ni gis nga def nañ benn chronogramme boo xamante ni fii ak fin avril normalement projet yi ñu soxla yëpp war nañ xam yan la wala outil bi financement yi ñu commencé di leen financé tànk nang à partir du mois de mai donc fii ak décembre 2021 jëm 2022 maanaam li ñu sañoon lu mu bari bari ci ñaari at yi junni emploi yooyu dañ ko créé fii jërëjëf